le pot à chambre. aywa li doon si un soldat meurt pari devient pris c'est quel soldat. CRS. léegi loolu cinq lettres man maa leen jël def leen ay caporal def leen soldat boo génnee aar yi nga léegi nga taf la lan lay def prix. acca salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax waaye rawatina mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy safoo RMB TV jamono bu ñu toll nii sunu kaddu mi ngi jibee fii ci Géejawaay waaye nag bu ko gis fu ma taxaw nii xam ne maa ngi taxaw ci bërëb bi nga xam ne mooy Arcos bu Géejawaay fas yéene fekk si ay ndaanaan waaye fekk si ñi nga xam ne dañuy dund li nga xam ne mooy art waaye di dund li nga xam ne mooy théâtre waaye nag ñu ànd ak équipe ne ñoom ñooy nag jàpp sa compétence fas yéene naka la waa Arcos bi di li nga xam ne mooy seen événement waaye nag rawatina nag événement bi nga xam ne ñu ngi ciy jublu muy jàpp sa Thione Pine Danse ànd ceeg artiste bu mag boobu di Thione Pine Danse xam ko ci docteur imaginaire RMB TV du rate dara incha allah ku soobee yàlla yonent bi lépp loo xam ne war nga koo am incha allah naa la ko jox incha allah ci kàttanu yàlla baa xam topp ma ma daal di dugg kii xool ñi nga xam ne ñoom ñooy waa arko bi di ci nuyu nag ki nga xam ne moom mooy njiit gi muy Cheikh Mbacke Niass ma koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaare yàlla jàmmam yàgg ndax ni muy tàggatee xale yi leer na xam naa sama cameraman danga topp rek mu daal di naka la gars yi di ko dundee incha waaw ca comme niñ leen ko waxee ñu ngi leen di bëggee waat bu baax a baax a baax a baax waaye nag bu ngeen gisee xar kanam gi ma taxawal euh, nekkatul koo xam ne dañu koy laajtee ndax jëmm ji moom mooy nekk fii di tàggat ñi nga xam ne ñoom ñooy yi ci wàllum aar muy Cheikh Mbacke di ko ñaanal jàmm fas ko dékk suñu micro bi daal di koy laaj naka lay dundee li nga xam ne moom mooy yi ak naka lay préparé li nga xam ne mooy compétence ngi ñëpp di leen sama sama frère bi à travers waa EMB TV maa ngi leen di nuyu di leen di leen jaajëfal lool di am mbégte nag euh, ñëw gi ngeen ñew fi ci Guédiawaye fekk ñu fi fi ci Arcot Sud bu Guédiawaye fekk fi xale yëpp tey di vendredi nga xamné ne vendredi nga xamné jour bi spécial la ndax fi lañuy yendu fi lañuy ñuy añee artistes yi ñëw waxtaan donc ñu def ay quelques ateliers dogo commencer séance de répétition yi mu tombé juste na ngeen tombé ñu ci ben création bu tudd njagamar ñukoy koy nga xamné ne tournée nationale la donc ngeen jël kenn ci sunu xale yi muy compétence nga xam ni wax dëgg yàlla moom da cee am liggéey bu am solo ci création bi fii ngeen collaboré war a def benn spectacle boo xam ni moom daf ci war a jouer en one man show donc muy xale boo xam ni xale bu dynamique donc am talent boo xam ni wax dëgg yàlla kenn werenteetu ko donc compétence moom ku ko xam xam ko ci différence posture yoo xam ni loolu lay incarné ci ci ci ci ay personnages yu bokkul quoi donc kon bu ngeen ma tàllalee micro bi ma laaj ci moom du ma sawar lu dul tontu leen ci quoi en tout cas am nañu loolu ngeen ñëw fii dékk ñu micro ñu fas seen seq ak yéen waxtaan. Mhm. waaye nag Cheikh Mbacké ku ne xam na ne tàggat xale dafa métti. tàggat xale dafa doy waar rawatina ay góor ki jigéen naka nga koy dundee coono jooju ak métti boobu wax jooju na koy dundee. dëgg la waaw bari na coono nag bari na coono. parce que ku nekk ak tempérament te dañuy wax ni olof yi dañuy wax ni booy sàmm ay jur benn yet ngay sol yor mais booy sànn sàmm ay mbooloo ku nekk ak yatam ku nekk ak tempérament daf ci am ñoo xam ni il suffit nga wax rek li nga expliquer li nga bëgg expliquer rek ñoom dañuy comprendre dafa am ñoo xam ne foog nga yuuxu ñu comprendre dafa am ñoo xam ne foog nga gëdd leen dafa am ñoo xam ne sax foog nga dóor leen wala nga yëngal leen wala nga merloo leen dàq leen sax ñuy doog a comprendre loolu lépp ay modèle la yoo xam ni foog nga xam nit ki ngay waxal d'abord dafa am ñoo xam ne nag bëgguñu yuuxu donc ku nekk ngi fi mais nag ba am na fi ay ñoo xam ne takk wax deug yalla bo len xoolee rek yombal na suñu liggéey ku ci bind ay ngone mbay ay Moussa Dieng VIP santé ay tonton libas bari nañ fi dal ay teneur yo xamni su xalé yi xoolee ci ñom rek dinañ leen motiver pour meuna pour meuna def sen liggéey correctement quoi parce que liggéey bi nak donc du liggéey bo xamni liggéey bu bu bu bu kenn mënu def la quoi du lu compliqué il suffit que nga concentré wu rek xol sa ay morom rek donc di nga meuna di nga meuna xam li nga li nga bëgg exactement ñun tam dinañ meuna di nga meuna xam lan la ñuy xaar ci yow quoi métti na méttiwul donc te yoon bi yàgg naa daal mais ñi ngi góorgóorlu ñi ngi te it ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ. macha xale yi nga xam ne bëgg nañu ñëw fii ci Arcos bi ban yoon la ñuy jaar pour daal di ñëw parce que am na ñoo xam ne bëgg nañu théâtre lool. waaye nag damay dégg mag ñi naan loo bëgg da nga koy jàngi lu nekk don tamit demal nga jàngi naka naka nga koy doxee ak ñoom pour moom mën a ñëw intégré ci fi nga xam ne mooy waaw ARCORS nag organisation organisation la boo xam ni euh, ARCORS euh, national au niveau mi ngi fii foo dem ci Sénégal rek am na ARCORS bu nekk fii donc bu dee fii Guédiawaye donc ñun ñu ngi fii ci foyer bi nekk commune Wakhinane Nimzatt ñu ngi fii boo fi ñëwee nag condition yi taxul mu bari lool liñ lay njëkk a laaj ndax mos nga dem ta mos def théâtre boo ko mosul def na ko bëgg rek am envie def ko te condition yi ñu fi teg muy discipline bi yar bi ak teggin bi ak ñëw adhéré nekk membre jënd carte de membre bu amee cotisation nga participer bu bu ñuy def dara sant la ci liggéey bi nga mën ko def correctement lool la rek nek ci norme yi am discipline bu ñuy répété nga bañ wax dugg heure bo répétition yi jeexee nga dem ñibbu correctement bañ jël ben engagement di wax ci arcos lo xamni ne wax loowuñ la nek nit sur suivre règlement intérieur yi te bañ ko wacc loolu mom boko dajalé rek pour bok fi mom compliqué wul parce que bo ñëwé tay mën nga bok tay mën mën nga am opportunité sax am ben scène donc ñu am na ño xamni sax bok nañ fi tay casting ñëw fi jàpp leen tey ñu ñu ñu joué ku nekk ak sa sens quoi noonu la tey ñun loolu moom jeune wuñ nga dem sa yoon loolu jeune wuñu quoi loolu sax d'ailleurs lan la ñuy ñaan suñ sañoon ku bokk tey rek da ngay gis njariñ pour que au moins nga mën a toog euh, ña naamaat sa bopp mën a toog bokkaat ci liggéey bi quoi xam naa duñ la fi téye ndax ku ne xam ne ne instant bi toll na yaa ngi war a delluwaat ci répétition bi lan ngay tàggatoo ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan waaw di sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax di leen sant yéen tamit parce que li

donc bu ñëwé dinañ gis benen facette ci Chompin Dance té ñun inshallah ñu nga fa ndax ñun invité d'honneur lañu té inshallah dinañ and ak euh, njabot yépp ñëw teew foofu insha allah ñu ngi def jox sénégal yëpp rendez vous nañ ko ñëw loolu moom bu leen ko kenn nettali waaw car rapide rek dèjà affiche bi rek wax boo gisee car rapide rek xam nga loolu c'est typiquement cent pour cent sénégalais ci biir car rapide bi nag li ciy xew ak yooyu moom <laughs> dañ koy nett yaat ay ca jaa ngeen jëf ay ca jaajëf boo yaa war a jiitu moo tax heure bi jot gisoo fi kenn ah non non waaw maa ngi am yow da ngaa mën a xool fi nga nuyu ma sama loxo yi te bëgg a jàpp sama mbokk yi ma ko eggee lan la. maa yaa ngi am jàmm jàmm waaye taw taw na yow tamit nag waaye sa yii non non benn yoon la ah maa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah alhamdulilah jaw jaw jaw ah ah Cheikh Cheikh Cheikh cek alhamdulilah. yow lu ma la nuyoo nga naa junni. maa moom sama nuyoo nuyu ma la. ah maa moom sama nuyoo laax nuyu ma la. yow mën a bàyyi sa affaire baadoola yi. eh bu ma waxaat baadoola de. ah kay baadoola ci yow la fekk baax. nga ni yow baadoola rek yow ci. yow da ngaa baadoola la la ma rek laax man du ma wax ak yow maanaam da ngaa baadoola. eh kon aywa man yow dégg nga li mu wax. Eh, li fi nekkoon na fi nekk de. yow lii xale ba léegi moo fi nekk. yow dama la la la dama lay téye wax ji mën naa jeexal baax na man fa ma lay xaar sori jërëjëf fa ma lay xaar sori taatu ko ya may may may gam na may alhamdulilah may alika alika alhamdulilah alika alika alhamdulilah alika alhamdulilah alika salaamaaleykum ah ñu ngi jégalu de ñu ngi jégalu de ñu ngi jégalu jaw jaw ñu ngi jégalu jaw alhamdulilah waaw yéen ci jàmm alhamdulilah waaw yéen ci jàmm ah waaw jaw lu xew jaw jaw ni li mu wax nag nag na ma ah asalaamaaleykum mbooloo mi yéen waa dëkk ci turu borom dëkk ah. nee na ku doon kilifa. Hmm. ña yilifa tax. wax dëgg nag ñu nangul la du jàmbaar. gis ngeen ña lànk hmm. du ñu seen noonu. Hmm. ndax wute. yàgg na fi. ku ñëpp nangul nag amul mukk ba ci sëriñ naa mu xamee. soo laa wala lii nag moo sababati woote bii. Nak may deglu ak deg may ko noppa nopi ah burum deug kaddu gaa non dara def fay ah yéen maa gën ma ngi leen di sey di leen baal ah da waxtu yi demee ku ci nekk mu ngi la war def ci ta doole ya la waaye yu mel ni ñu ko day gis amna lu xew wala amna lu ko xew hmm. te it ngeen am ay fàttaliku tuuti amoon nañu fi ay gari nasaraan. dëgg ñu fi ñëwoon léegi ni fii daaw defaraloon na fi ay moto pompe. ñoom ale. waaw ne bataaxal lii. Hmm. xamal ma ni gaaw gii di ñëw. dañu fee bëgg a dellu gaaw gii. waaw ah ñoom kenn bare nañ fi. loolu sax ah tey bi la yoon. seen dikk gii. dina wuuteeg lool ni ñu fi dikkee woon. ndax xamal nañu ma si biir bataaxal bi ne. waaw suñu fi dikkee. a defaral mag a mag. nii nii nii. wuy wuy wuy wuy wuy forage wuy forage wuy moo mën a rési rek la jaw jaw man de sax mënoon na ko defee leneen lu gën a yomb wuy foras wuy foras wuy foras wuy foras taas bat kit bles ah, na tan foras foras ah lu am nag lu ñu wax nañu ko jëfe doo gis waaw nañ ko waxtaane daf taa jëg ma bëggoon ñu waxtaanee laataa ñu dëkk ndax bëgguma ñu dëkk fii dala si nekk di xëy ñi naan fii lañ koy def ñëw di xëcc naan fii lañ koy def kon nag kàddu gaal ko ku ci am kàddu nga yëkkati ko baaxee lu ko rek bisimilah. borom dëkk bi nga baal yow ni nga àndeeg ñun nii nga mas àndeeg ñun àndoog ñun ba pare ku feebar nga ne rendi leen te jël ci gétt ji dajal yàlla bu ma dee doon lenn nag neex na ndax ñoom allé buñ fi desee ne dañuy defal ay forage ah mbégte la ak bànneex ndax umpale woo leen ni suñu soxna yi bu ñuy rob dañuy jox ay kilomètres et kilomètres waaw moo tax ndeysaan firnde gi laa leen di jox aji nu mu tub kaay ma ne aji nu mu teew kaay kuuka jógal ndey kuuka jógal ndey kuuka jógal waaw man euh, ma ne pour yéen ñaar ñii. ñan ñoo ma. waaw kii yéen a. kan moo ma ma ne kooku kii waaw nga bi. Ah, kii yéen ah, kii ni tax mel nii. Ah? moo féetewoo wàllum rob ji. kii moo féetewoo jàng mi moo tax mu toll kii boo ko xoolee nga foog ne ndeyam dund ndeyam a ngi dund. kii ndeyam a ngi dund. ah kii leen mën ngeen dem toog dama doon joxe kii rek kii rek loolu wane rek. waaw yow yow wuyu ma jaw ah, ah, yow nga ne kooka mi ak aji numato yéen yéen yéen yéen laay laaj ngeen ne kooka mi ak aji numato <laughs> allahumma innakum wayen war dëkk da metti na de moo gaaye ndaayam nag képp lan moo ma tax xoolal man bu ma gis def na mo muusal sama yaram sama yaram yëpp a dellu wala la yàlla ba ma ko teelee borom dekk bi yàlla bu de dee dogal lenn dal la bëgg ñom alé buñ fi ñëwé defal ñu ci li ah mbégteel waaye ndax dinañ mën a bay. ci taxawaay bi ndax gis nañu lool waaye nak lu mënta ñàkk faaw mu am. ñi ngeen gis ni nii mooy sama staff bi ñoo xam ni ñoo bokk koñ foowandoo defandoo lépp ñu gëm ma tamit yàlla dogal ñuy def benn spectacle le 25 février spectacle mi ngi tudd kaay jàpp sa compétence kaay jàpp sa compétence comédie show la humour la ñu koy def feeñu dëkk nga xam ne fa la ñu jógee chaque jour di ñëw arko di ñëw répétition muy Fass Mbao rond point tali Maam Jaara rek ci salle de musculation bi yàlla dogal nag bi ñu taxawalee loolu ñu ne président Cheikh Mbacké la def invité d'honneur ci événement bi la jëlaat fi tamit Baye mbay tuddee ko événement bi damay ñaan kii nu mu tudd boole woon na ma ak yow kii kii waay Modou Modou Gueye pour ma jox la enveloppe am pour nga yóbbaale ko ko waaw li ñu fi taxat kii nag indi indi nag ngeen comprendre dama dër li ñu fi tax a indi nag waaw mooy dañoo ñëw pour yëgal si leen événement bi ARCOS su Géejawaay waaye indaaleel président ARCOS bi kartam pour xane wane ko bis bi moom kenn ëppale ko ci. da ci am wàll ndax ku ñu xam ñun Géejawaay lañ bokk ban boo xee ba léegi bawul 2020 lañ fi ñëw yàgguñu fi nag waaye boobu ba léegi ñu ngi fi yaatal nañu lépp mën naa ni tey yu si bari fii lañ ko jaare wax dëgg fa yàlla yàlla yàlla xeeb dolli waaye am naa mbégte contentement ci yëgal leen bis bi. pour ngeen téwal ma fi nga xamné man fa laa dëkk. inshallah inshallah événement bi nak le 25 février la damaa mënut wax. salam salaamaaleykum. Arko Guédiawaye ñu ngi président bi ñu taxaw ak mu yobale membre bu fi nek di len jox set salaamaaleykum Arko Guédiawaye ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ci jiital président Cheikh Mbacké mu yóbbaale bépp membre bu fi nekk donc di am contentement bu baax a baax ci dalal bi ngeen ñu dalal ak toog bi ngeen toog di ñu déglu ah, di am ay kàddu seede yu ndaw rek yi ma wax ci Thiobbintance mi parce que saa yu nu toogee réunion euh, wax bi mu bi ngay jëkk dégg mu tijjee ko Arko Guédiawaye bu ñu waxee mu ne Arko Guédiawaye te bëgg naa bu ma fay dem tamit yéen képp ki nga xam ne sama xarit nga képp ki nga xam ne bokk nga ci staff bi ngeen ànd ak man ngeen góor waroon nañoo ëpp lii waaye xëy na yitte yi ak ak tamit euh, euh, des fois nga programmé dara ba pare am leneen la gàllankoor mais waroon nañoo ëpp lii tey fii yëpp dañoo waroon taxaw ci ginnaaw ci compétence mais nag xëy na nii la ko yàlla dogalee donc nag di wax ne ku leen fonk la lépp lu muy def balaa wax dara dangay ngay ne Arco Guédiawaye donc tamit loolu di li nga xamante ni xëy na li ngeen ko wan yéen tamit ak euh, tée bi ngeen ko xëy na looloo tax mu mu mu demee noonu aussi tamit di leen yëgal suñu événement le 25 février incha allahu bi bëgg tamit ngeen ànd ci ak ñun gunge ñu ci dooleel ñu ci voilà di leen ko yëgal bépp membre bu fi nekk rek donc jàpp naa ne sax événement bi ñun suñu événement la ñun ñëpp parce que moom coppitance boo waxee coppitance rek da na ne arko bu Géejawaay donc tamit ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp damaa mënewul wax na ngeen baal ma. Fada <laughs> merci ko jërëjëf.

parce que bu ne yeen depuis xalé yeen ngi di and ay amis d'enfance am ngeen ba pare lolu doyatul ngeen accompagner ko ci bëgg-bëggam mom kon fay wané ni lolu and bu yag la quoi di len wax ni li ngeen def tamit ñun ngeen ko defal parce que tom compétence mi japp nañ ni commençant par man ak ñu tok fi yépp japp nañ ni ñiko wara war promouvoir ñun la wara ñun la ñun la wara a parce que fay joggé fu sori bayi fi ñëpp choisir arcot yépp parce que mënon na dem su Kër Massar mënoon na dem Arcos Pikine mënoon na dem Arcos Tëngéej mais yàlla dafa dogal boole kook ñun mu choisir ñëw Arcos su Guédiawaye te bi mu fi ñëwee ba léegi jóge duñu ñu ñun ku ñu fonk la ku ñu fonk la ci disponibilité am ku ponctuel la bu ñu joxee heure huit fii huit lay ñëw te gis ngeen fi mu dëkk te li maam jaara du fii bu ñu nee dañuy fanaan si moom mooy njëkk a ñëw ñëw bu ñu waxee cotisation combitance kenn du ko njëkk cotisation ba ci vendredi yi ñu fiy dajee dépense bi moom toujours da ciy dugal ña xam di ci dugal xaalisam donc kon yaakaar naa ni bu amee spectacle ñun ñi ko war a gunge ci spectacle yi ñun la war a njëkk a doon donc ñu di leen di wax incha allahu rabbi bu 25 février jotee kenn du ñu njëkk a jàpp suñu combitance ñun ñun jàpp nañu combitance avant ngeen koy jàpp donc pour dalal seen xel daal leneen wax ni wax dëgg yàlla am nañu contentement ak mbégte ñun itam ngeen ñëw taxaw fii ñu gis leen donc ngeen accompagner ko di ay xaritam wax dëgg yàlla loolu tamit mbégte la le secrétaire général mi ngi nii lamin Mbodj donc yaakaar naa ni mi ngi dégg li muy li ñuy li ñuy wax lépp donc jildee ngi nii ñeneen yeneen membre yëpp ngi fi incha allahu Baye mbay donc dinañ ko jolole jotale xibaar beeg lettres yi incha allah dinañ ci am taxawaay bu bu mat pour ñëw foofu gunge ko ci spectacle bi quoi jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen jërëm merci beaucoup jërëjëf. waaw di ci wax site internet bi ñu gis nag moo ñëw pour jàpp ci communication événement bi partenaire la waaw télé télé la damaa waaye télé la site la. am na tamit seen yooyu yooyu yëpp la kon rajoutement la waa kay mi ngi noonu waa RMB ñoo ñoo jàpp ci Euh, visibilité spectacle bi lépp ñu ne fépp fu ñu dem war faa yóbbu carte dañuy ànd ak ñun comme niñ ko defee nii ma ne la bu aar ko géejawaay man falaa ne teel leen a ñëw parce que falaa gën a fonk ak fépp fu ma mënta dem fii la ñu leen di jaajëfal ñoom partenaire lañ ci événement bi di leen félicité ci seen disponibilité di leen wax gàcce ngalaam jaajëf Pape Diagne am. koko. le pot à chambre. aywa Ido Samba. xale si un soldat meurt, Paris devient pris. C'est soldat? Vale, la, B, la, F.